ak di ziyaara mboolem mbokk yi nga xam ne mën naa am kàddu yi ak faral di waxee nag kàddu yi de ki koy yëkkati moom du waroomu xam-xam waaye waroomum xel la moo xam ne léeg-léeg dana jëfandikoom xelam di ca xalaat ca xalaatee ba mu daje nag mu bëgg ko tuur ngir jëriñoo ko waaye ngir jëriñe ca kon la ñuy jiital ca kàddu ya mooy lépp lu cay yiw ak jëriñ yàlla nañu ko yàlla boole ñu jëriñoo ko waaye lu cay njuum te yàlla nañu ko yàlla borom bi jéggal te jéggal mboolem jullit yépp seeni bakkaar mbokk yi dañoo taxaw ci discours boo xam ne sunu njiitum réew muy président de la république alaaji Macky Sall def ko muy discours bu am solo discours boo xam ne ñoo ngi koy félicité président Sall ñu ngi lay félicité ci discours bi wax dëgg yàlla discours bi day discours kilifa la discours ab kilifa goo xam ne xëy na daa bëgg a delloo ak njabootam ci ak njub ndax nag daa bokk ci ci koy kilifa mooy di surveiller ak di xajji ak képp ku nar a fet di géew ca la xam ne moom la ko yàlla dénk muy discours boo xam ne nag ñun ci wet giñ koy jàngate moo tax ñu di ko félicité day discours bu am solo ndax alaaji Macky Sall yàlla na ko yàlla sàmm te may ko wér daa wax ne réew mii di Sénégal soxlawuñ fi diine ju bees wax na dëgg diine ju bees moom soxlawuñu ko fenn waaye rawatina Sénégal ndax diine daa beesu daa yàgg moo tax ku indi diine ju bees dañ lay wax ne lii bokk ci waaw góor président de la république loolu nga wax day waxe yonent bi la alayhi salaatu wasalaam lu jiitu mu fiy jóge moom ci junni at ak ñeenti lanuy sos ci diine mu bees ñu di ko def ci diine mu bees jéggi na dayo ba bat bu set bu bees génn ba fan yii rek dégg naa sunu gàmm yi ñoom séeréer yi di wax ne kenn ci ñoom di wax ne nun tamit li fi indi diw indi fi diw moonu fi indi bërki démb la fi jibril jóge xam ngeen ne loola diine ju bees tàq la wax na dëgg waaye du moom dong nag diine joo xam ne am na junni at ak ñeenti téeméer suñ ñu ca indilee lu bees war nañoo wax ne lii du lu bees waaye bokk yi lan mooy bees ci diine ji ndax ñi ñu fi jiital léegi ñu jiite ko te jànguñu xaala wala kasiiran ni man ñoo fi bees ndax ñi nga xam ne ñoom dootuñu dem Makka dootuñu joxe asaka ndax ñooñaa indi lu bees ci réew mi jërëjëf wax nga dëgg président loola de bokkul ci diine ji loola lu bees la ndax diine ji de wax dëgg yàlla yàlla daa yónni woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wàcce ci moom téere bu tudd alquran waaye bal yamu ca mu yónni jibril alayhi salaatu wassalaam ci jëmmi doomi aadama mu ñëw toog moom laaj ko luy gëm yàlla mu ne ko nga gëm ne yàlla rek lañu war jaamu amul keneen ku ñu war jaamu ku dul yàlla waa kon day wax dëgg yàlla suñ ba gis ñuy jaamu ay nit te bokk yi jaamu mooy lan jaamu mooy lépp lu yàlla yeewoo moom dong nga defal ko keneen wala nga boole ko ko moog keneen yaa ngay jaamu ko te yàlla day subhaanahu wa day wax ne moom day ku doylu la lépp loo ko boole keneen mu bàyyee laa kookaak la nga koy boole ndax mu loola soxlawu ko wax nga dëgg président loola de diine ju bees la te bari na lool ci réew mi war nañ cee wax wax nga dëgg président diine ju bees te tey mooy buñ demee ba am ci réew mii ñoo xam ne mbooloo yu baree bari ñu bees la tey buñ demee ba réew mii am ci ñoo xam ne dañuy dem di jébbalu ci koo xam ne nee nañ jigéen la tarray diine xamu ko melaw diine amu ko ñu jébbal ko seen bopp adduna ak àllaaxira te loola ñu ne ci diina ji lañ ko boole loola de diina ji bees na wax dëgg yàlla président loola soxla wuñ ko président jërëjëf yal na yàlla fay la xam nga ne diina ji bees ne day weesuwul tey économie réew mi alalu réew mi suñuy jur sunuy alal ñu di ko dajale daanaka weer wu jot ñu créé xew-xew bu bees buñ toll ci diine ji boo xam ne yàlla santaane wu ko yonent bi digle wu ko xamu ko moo ki saxaabaam mag ñu baax ña xamuñu ko woon te ba fekk dolli ko ci diine di ci yàq alali réew mi di ci créé ay accident di ci rey ay doomi réew mi te ne loola ci diine ji lu bokk wax nga dëgg loola de diine ju bees la wur மக்கள் nag kon wax nga dëgg junni at ak nangam diine ji ko am waaye tey ci réew mii de liñ fiy def te tuddee ko diine te matagul ñetti téeméeri at moom kenn xamul nu mu toll mais loolu yëpp diina diina jooju nga xam waaye buñ paree yar ci nit ñi waaye buñ paree yar ci jullit yàlla yi mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo di jiitu woon kon président ñu ngay félicité encore di la ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral la ci jéego bu rëy bii nga dugg yal la ci bunt bu rëy bii nga ubbi yal na yàlla may la kattan ba koy dégg man ko jëriñoo yal na yàlla may la kattan ba xol koy man koo nangu waaye nag muy xoli dëgg yoo xam ne seytaane du ca ba